mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu fi baaxoo di leen nuyoo fii ci Mbakke ci ci Njóobeen ci pencum kër Sëriñ Omar ñu fas yéene incha allahu rabbi ànd ak jëmm joo xam ne ganniyun ani taarif la ci daawa yi nga xam ne mi ngi koy def ci yoon wi waaye mi ngi koy defit ci lislaam bi muy sëriñ Ahmadou Mbàkke mi toog di kenn koo xam ne euh, sëtu borom Daaru Muxti la di borom xam-xam boo xam ne àdduna sépp ñu ngi koy dégg ci joxe gi mu koy joxe ak joxin mi ak solo gi mu am ba nit ñi mën a jëriñu ci xam-xamam moom lañ fa yéene ji jii ànd ak nag moom fii ci barab bi nga xam ne yaakaar naa bii mooy ak njëlbéenam mu mas a teew fii ci jumaa ji nga xam ne moo nekk ci pencum kër sëñ Omar Diop ci Ndiobène Mbakke ñu fas yéene ànd ak moom ci benn tomb bu am solo boo xam ne tomb la bu daj jamono tomb la boo xam ne du ne du mën a ñàkk ci nit waaye ku ne xam na ne doomu aadama léeg-léegi jamono mën naa jafe ba mu dem lebi lum dundee loolee mu lebi ñuy wax bor loolu la sëriñ bi war a waxtaane ad dayinu ahkaamuhu wa adraaruhu atte attey bor ci lislaam saa yu ñu jàng waxee attey ba noppi nag njariñal bor danañu ko wax ci biir waxtaan wi waaye nag lor yi nga xam ne moo nekk ci bor suñ bi danañu ko wax kon loolu mooy thème bi nga xam ne moom la sëriñ bi fas yéene waxtaan ak ñun ñuy ñaan nag mbokk yi fi nekk yëpp ñu silencé téléphone yi ca may ca ca déglu bu baax a baax ndax su suñu fekkee ne dañoo am gan koo xam ne yàlla dogal na mi ngi mës a ñëw ci pencum kër Sëriñ Omar mii ca ñun ñëpp ñu ngi ko doon topp ci réseaux sociaux yi te lii ñu yàgg ko bëgg ci suñu xol suñu borom dogal ko tey kon mbégte ci ñun moo xam ne ñoo ñoo ngi koy ñoo ngi koy seeral bi waxit ci turu ki nga xam ne mooy xalifa kër Sëñ Omar tey ji muy Serigne Malick mi nga xam ne moo jiite mboolem njabootu kër Sëñ Omar gi jëwriñam Serigne Cheikh Ngabou waaye al naatiq ar rasmi bi nga xam ne moo yor kaddu kër gi muy Serigne Khalifa mi ngi ñuy dégg di waxit ci turu lañu saqaafiya bi nga xam ne raïs bi mooy Sëñ Maxtaar moom Sëñ moom Sëñ Mafos nga xam ne xalaat yi yëpp ci biir lañu bi la jógee kon su ko defee ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo coiffé liggéey bi bu ko defee ne kenn ku nekk ci ñun ànd ak déglu ak teewlu ci li nga xam ne mën nañu wax tomb bi nga xam ne mën nañu wax sëriñ bi kenn ku ci nekk bu ci jugee ci ñun bu amee leen nit bor mu jéem koo fay mu xam bor lan mooy àtteem xamit bor njariñ yi ci nekk xamit lor yi nekk ci bor kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëgg ànd ak sëriñ bi kon sëñ bi bisimilahi tafadal mashkura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 njaboot gi mooy sunu bunt ci ñoom di siyaar itam njabootuk sëñ amar Diop gépp di am mbégte lool it ci ñëw fii ci xadrab Cheikh Omar Diop di ñaan yàlla mu taas nu ci barkeem te defal nu tawfeex ci jataay bi ba liñ ciy lépp nu amee ko ni ñu ko sëñ Cheikh wax na ko léegi waxtaan wi dafa war a jëm ci addaynu ahkaamuhu wa adraaruhu muy jëmmi bor ci boppam ay àtteem ak xeeti lor yi ci ne ak njariñ yi ci ne ak solo sim am bor xam ngeen ne lu am solo la lu ñëpp xam la itam ndax lu mën la ñàkk la ci dund doomu aadama ndax bor ay xeet la yu baree baree bari moo tax bu ñu ko waxee am na maanaa yu bari yu muy jamtal des na ko wax jublu ci maanaa mu yaatu ndax nit ki dana ame bor boo xam ni borub julli lay doon wala borub asaka wala borub koor wala borub xaj màkka wala boy bor bu aj ci jaay jënd ak lebalante ak luye nit ak yu démé non yëpp xéti bor la kon bor lu yaatu la dana am ci diine dana am ci jëflante jëflante aduna bi itam ndax gis nañ sayyiduna abdullah ibn abbas mu net li wax ne dafa am waji ñëw ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko إن أمي ماتت wa صوم شهر shahrin anha qaala naam qaala fa a axaqu an yuqda waa ji dafa ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man kat sama waajur bu jigéen dafay jóge te amee bor koor lu toll ci weer woo xam ne da ko waroon a woor te wóoru ko ndax loolu dama ko koy fayal yonante bi ne ko waawaw da koy fay kay ndax borub yàlla moo gën a mat a fay coro ci lañ dégg ne kon bor lu yaatu la dana am ci diine waaye dana am ci aada itam muy jëflante bi dox ci diggante nit ñi ñun nag lii ñuy waaj waxtaane bor bi ñuy waaj waxtaane dañ koy tënk ci bor bi aju ci alal yi ci jëflante bi xew diggante doomu aadama yi nit ki nga xam ne dafa am aajo dem lépp moroomu doomu aadama mbokkam mu lebal ko la mu koy lebal mën naa nekk xaalis bu teew mën naa nekk am marchandise waaw mën naa nekk itam leneen waaye bor boobu moo tax ñuy waxtaane moo moo tax moom la ñuy waaj waxtaane bor boobu nag lu am solo la ci lislaam lislaam du ko jox yitte bu wér a wér ak gëdd gu rëy li koy firndeel mooy aaya bi gën a gudd ci alquran ci bor ci bor lay wax يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه aaya boobu wax ni mu ku ne xam ne sax ne mooy bi gën a gudd ci alquran te aaya ba yépp ci bor lay wax ak jëflante bii dox ñaari doomu aadama ñaari jullit ñi ci wàllu bor nan lañ ko war a bindee seere yi mu war a am ak mboolem la ca aju ci ay atte mi ngi ci aaya boobu loolu rek doy na ko solo bor am na solo te mënta ñàkk ci dundu doomu aadama itam ndax bari na ñoo xam ni dañ dem ba yàlla defal leen tawféex ñu am alal te seen alal fa mu sosoo bor lay doon dañuy dem leb ñu lebal leen ñu jaar ca liggéey mujj am am am am tawféex am xéewal yu bare bare fekk fay nañ bor boobee ba amaat yeneen xéewal moo tax bor lu am solo la ba tax na kenn du ko mën a dàq rek wax ne bor baaxul déedéet bor lu am solo la am na ñoo xam ne bari nañ ay man-man ci seen biir nga xam ne yàlla def na ci ñoom xereñte waaye xereñ googu du gaaw a mën a génn di fekk demuñu ba am luñ mën a liggéeyee ba mën caa feeñal xereñte googu ak man-man bi nga xam ne moom la yàlla def ci ñoom am na ñoo xam ne bu ñu amoon capital tey danañ mën a liggéey te loolee danañ ca mën a liggéeyloo ñeneen mu doon njariñ lu bare lu ba lu bare bare ngir yàlla def na ci ñoom ay xerañte ak man-man ak ay pexe yoo xam ni bu ñu yurul dara moom kenn du ko xam waaye bu ñu amee pexe rek mu feeñ bor solo si itam dana feeñe ci ne ak jàppalante la dimbalante la koo xam ni day boole jullit ñi ndax ki nga xam ne dafa am yitte ju ko jaaxal ñëw ci yow nga dimbali ko te yàlla tax lebal ko kookee dana am jokkoo bu am ci yow dana am e, jàppalante dana am jàpp gum la jàpp itam kon luy boole doomu aadama yi la te yonente bi sallallahu alayhi wax na ne jullit ñi seenub ànd dafa war a àgg ci ñu mel ni yenn jëmm nga xam ne cër bu yëg aw mettit rek cër yi jërës yëg ko mathalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim wa taatufihim mathalul jasadi alwaaxidi ida staka minhu udwun tadaaca lahu saairul jasadi bilchahri walxumma imaam muslim moo ko net li wax ne yonente bi daana wax ni jullit ñi ak ñi gëm yàlla seenu bëggante ak seenu jàppante ak seenu yërëmante ak seenu ñeewante ci seen diggante dafa war a àgg ci ñu mel ne jenn jëmm bu benn cër yigéew metit wala jàmbat dara rekk cër yépp ko yëgandoo xam nga ne nit ki fu dara mettee ci tànkam cër yi ci des yëpp ko yëgandoo bu loxo mettee cër yëpp ko yëgandoo bët bi bu mettee waxe nopp ak ak bëñ sax bëñ sax bu nopp bu mettee ci moom cër yëpp ko yëgandoo ñëpp ay maase tëdd jullit ñi ne loolu lañu war a mel ki am yitte am aajo ci amul menn pexe te boo ko lebalee mu mën a génn ca yitte joojee xam kooku defal nga ko ndimbalu lu rëy lu yàlla fay lay doon itam motax bor day bolé nit ñi waye day sabab yermane itam te yoonte bi waxon na ne ñi yërëme yàlla dana leen yërëm motax ñi ngeen mëna a yërëm ñi ngeen tane ci kaw suuf na ngeen leen di yërëm ndax sunu borom yërëm leen irhamu الراحمون يرحمهم الرحمن irhamu اهل الارض ولا من في الارض يرحمكم من في السماء يونس sama loolu yonente bi sallallahu alayhi kon ki nga xam ne dafa man yor alal joo xam ne yittewowu ko ci këram yittewowu ko itam ci ay yitteem te man koo lebal jeneen doomu aadama kooku lebal ko ko loolu buntu yërmande la boo xam ne kam ko lebal bu dee nit ku ànd ak sagoom dana xam ne kii defal na ko njëkk du ko fàtte mukk moom bu ëllëgee bu tanee nit dana ko fay fi ne tey day gis nit koo xam ni day nekk ci jafe-jafe dem ba buntam yépp tëje mu jaaxle jaar fu bari ñu gànt ko waaye bu ñëwee ci yow nga lebal ko loolu dugal nga ci moom buntu yërmande fi ne ëllëg bu demee ba man mën naa dimbali ñeneen te ñam yi dimbaliwaat yow dañ lay fay lam cee amee lañ cay lañ ko fay ci tuyaaba lu toll noonu lay fay yow mi ko njëkk sa bopp suñ borom noonu lay fayee loo def ci lu baax lu baax loolee ku ko roy ci yow ak ku ko defaat rek ngir def gi nga ko defoon ëllëg mbooleem ña ko def lañ ca am lépp la ñuy maase bindal la ko yow mi ko jëkk a def loolu la yonent bi waxoon ci man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyaama aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne itam mooy leble lebal gi muy lebal mbokkum taalibe mbokkum jullitam loolu jëfu yiw la ndimbal la itam loo xam ni yàlla da ciy fay lu rëy ndax ku ne xam na ne yonente bi sallallahu alayhi wax ne saraxe benn boo ca def rek fukk lañ la cay fay waaye bor moom saa yoo lebalee fukk ak juróom-ñett lañ la ci fay loolu mooy xadiisu abi umaamata bi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na damaa tàbbi aljana gis ñu bind ca bunt ba ne as-sadaqatu bi ashrin wal qardu bi thamaniyata ashara saraxe de fukk la ci fay sun borom ne fukk lay fay ci bo saraxé manam benn sarax bo def rek ñu fay la ci fukk yu na toll waye bor mom boko lebalé nit fukk ak juroom ñet la la ci fay yoonte bi néna ma la jibril ne ko waw lutax bor ak lebale ëpp fay sarax mu ne ko li anna sadaqata taqa'u fi yadil ghani wal faqir wal qardu la yaqa'u illa fi yadi man yahtaju ilayhi saraxe lele ki ngay sarax mën naa aajo waaye mën naa bañ aajo fi de ñëpp ci ñi laaj ñi nga xam dañuy wër di laaj mën nañu bañ aajo fi de man laa sax tane yow mi ñuy laaj loolu day am nga xam ne yow ginnaaw laaj na rek doo xam fu tolluwaayam àgg da nga koy sarax te yàlla tax mën nga koo sarax fekk moom moo la ëppale sax wala mu wala mu yittewoo ko itam loolu lépp mën na ci am waaye bor moom ki nga xam ne mooy leb kooku moom ku aajo wala moom loolu moom doo ci am sikk sàkko ki jug di leb moom faw ku aajo wala moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu moo tax jibril ne ko loolu moo tax li ñuy fay ci boo leble di ëpp li ñuy fay ci boo saraxe rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi sayidna abu hurayra net li waxoon na ne man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه حديث بو مسنكو ديغ تي بور نخ يي موتي وخ ييب دا فاي جامتال كي ني ليبال اك كاكو ليبال لم نيك وخ موي كو وني نياخاري اجي گم اب جوليت دوما دما جو خامني امنا يتي يو يتيل am njàqare loo xam ni ak jafe-jafe nga génne ko ca nee na suñu borom bu ñu demee yobal xiyaam dana la génne ca njàqare yi am ëllëg ah xadis bu rëy ngi noonu boo xam ne ñu war duñ ko seetlu nit am jafe am soxla nga fajal ko ko ëllëg suñu borom nee na dana dox sa diggante ak mboolem njàqare ya nga xam ne moom ngay dajale ëllëg ci yobal xiyaam ca bis penc ba koo xam ni fexe na ba jàpp ndalal nit lu ko jafe woon itam suñu boroom dana ko. jàppandal defal ak jàppandal fii ci àdduna ak àllaaxira loolu la yonent bi wax mu tekkee ne ku suturaal ab jullit itam suñu borom dana ko suturaal ci àdduna ak àllaaxira itam li feeg yaa ngi dox ci yitte yi sa mbokkum jullit itam suñu borom mi ngi nekk ci sa yitte di la jàppale di la woyofalal di la dimbale di la jox ay pexe di la sol ay xalaat yu rafet yoo mën a lijjantee li ngay lijjanti lépp kon loolu rek jaroon na dimbalante boobu yi ba tey sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان له في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ما حدث بيواس والله إمام مسلم ما كان يقلي وحنه كيف كو خمني ياغي دوخ سي ييتاي سا مبوكم جوليت سون بوروم داي نيك سي سي ييتاي ياو تي سون بوروم كوم نيك سي ييتاي رك سي ليپ باخ سون بوروم ليپ سي لوخوم لا نيك كوم بغل خيوول امغا توفيق te li feeg yaa ngi dimbali wala nga ànd ak nit donte mënoo faj soxlaam nga ànd ak moom ca yitte ja di ko ja joxi xalaat ak i pexe ba yitte ja aajow euh, faju aajo ju faju neen suñu borom yow si yitte moom moo ko féetewoo di la ko lijjanti bokk na ci rek li ñuy xamee solos leble yow mi ko man yonente bi sallallahu alayhi wa mas naa wax ne amoon na ca gaañu njëkk ña koo xam ni danaa yaxantu di commercant daa leble itam ci biir euh, yaxantu bi muy def waaye ki ko daa fayul bor yi da ko daa wax ne ko boo demee ci koo xam ni daa tële fay kooku na ko muñal jéggal ko man ngaa fayu daal waaye ñi nga xam ne dañoo tële moom wóor la de amuñu ko ñooñu bu leen sonal bàyyi leen nee na ba mu faatoo suñu borom ne ko yow kat ginnaaw da daa jéggal ñi nga xam ne dañoo tële di leen di leen bàyyil di leen woyofalal tey dinaa la jéggal sa bakkaar yëpp daal di koy jéggal neen loolu moo ko tabal àjjana kon nit ki itam boo ko lebalee te mënta fay itam ndimbal ya nga koy defal te loolu wuute naag tubaab yi nii ñuy doxee nga xam ne moom yow moom banque bi tey nga xam ne moom leb ci moom dafa xaraam ndax day ëpp lante da cee tàbbi loolu riba la moom bu ñu wax mooy leb ci banque banque yi nga xam ne moom bu noo ko yi waaye ñoom bu ñu lay fayu amut amut moom moom lu ñu lay muñal moom dangay ngay fay mbaa ñu jël sa alal mbaa ñu yóbbu la sàndarma jullit nag moom lool ab jullit doxe noonu jullit moom dangay ngay leble ci kaw nag ay sart yoo xam danañ ci ñëw insha allah ak ay àtte yoo xam ne mun cee ñàkk waaye itam ki ngay lebal boo demee ba xam ne kii mënul moom mënta fay ngir ñàkk ak tële nga xam ne bañ a fay taxu ko teewu koo fay kooku dañuy suñ borom day bëgg nga jéggal ko maanaam nga jël nga nga muñal ko ba yeneen jëm bi jamono mu loolu mooy jikko yi ak jullit dëgg-dëgg waaye nag mu am lu mat a wax mooy kii leb itam ki nga xam ne day leb kooku na xam ne lislaam sëwarul ci ñi ci ci leb bu bari nii loolu mat a bàyyi xel la maanaam kii leb lebam kooku digg nañ ko ci lu yii ma waxoon yépp waaye kii lebit moo xam ne suñu borom artu na ba tàyyi ñiy leb boo demee ba aaju dëgg dëgg dëgg waral ko mën ngaa leb waaye na nga am yéene fay itam loolu yonente bi sallallahu alayhi wa ci xadis bi imaamul xaakim net li wax na ne man tadaayana bi daynin wa fi nafsihi wafaa'uhu summa maata tajaawaza allahu anhu wa arda garimahu bi ma shaa ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات iqtasa allahu li ganimihi anhu yowma alqiyama nee na bu fekkee da ngaa dem leb te bi ngay leb def nga sa xel ne man kat fas fas na maa yéene fay ginnaaw ba nga tële ba mënoo fay ba génn àdduna sax te fayoo sunu borom ci boom dana la jéggal te dana fexe ba yowmal qiyam boo fa demee dana la fayal ka nga séqaloon dana la da dana ko jox lu ko gërëm loo ba du topp dara waaye nag su fekkee bi ngay leb danga am yéene fa soo fay fa soo yéene fay moom waaye dinaa fexe ba jël dal <laughs> waaye moom maanaam nga xam ne moom da ngaa am yéene moom du ma fay moom te loolu day am nag day am ñoo xam ne moom dañuy leb leb boo xam ne moom moom yitte ji ñuy def ci leb gi rek ca ngay xamee ne ñii moom naru ñëw fay si moom moom boo ko boo ko joxee da koy da ngay da ngay joxe sa alal ngir yàlla rek waaye lii duñ fay ay fekkee da am yéene yi nëroo fay moom suñu borom nee na yomal xiyam buñ ci àggee da lay taxawal nga xam ne moom du bàyyi du la bàyyee ka nga ameel moom suñu borom ci boom mooy jàmmarloo yow jël ci yow la nam koy defee ci beneen xadis bi imam tabaraani net li wax na ca ne sa lu baax li nga amoon ci lu baax loolu lay jël jox ko ka nga nga borom amul lenn lu baax itam mu jël ñaawteefi kookee sëf la ko ndax yowmal qiyam xaalis amatu fa bu ñuy bu ñuy fayante dafa am mooy li nga jëfoon ci lu baax rek bu dee téeméer yu baax nga amoon ñu xool bor ba ni mu toll ci tuyaaba yooyee bu jëmatee juróom fukk wala juróom benn fukk wala juróom ñaar fukk ñu jël ko jox waaji su fekkee nag yuroo dara ci lu baax nag ñu jël moom la bon ci moom sëf la ko te tuyaaba yooyu fi ne mooy jàllale ni doomu aadama fi ne te yowmal xiyam boo demee li ñu def mooy natt li nga am rek ci lu baax ñaat la toll ñu ne junni yu baax am nga ko ñu natt lu bon li itam ñu ne tey junneeg juróomi téeméer am nga ko ci yu bon kon xam nga yow sa moom moom am nga jafe-jafe ndax yow sa lu bon da ëpp lu baax bi waaye nag kenn ku ne am nga ñu la amee li bor ak ñu la daa jëw ñu la daa ñoo xam ne tey dañ la amee li xàq ñoo ñu ngay wër moo gis fi moo tax fi ne ñi nga bokkal kër ñooñu fi ne ñu fi ne koo ci gis ku ci gis sa morom daw yow ma yafirul maru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibati. mooy ñooy say mbokk yi la gën a wër sa yaay ak sa sa doom ak sa baay ak sa rak ak ñooñu koo ci gis daw ku la ci gisit daw ndax du bëgg nga fay ko xaq ji nga xam ne moom nga ko amel xaq yooyu buñ koy fay ci tuyaaba yi lañ koy fayante dañuy xool kii kat jëwoon nga wala jëloon nga xaqam nangam ñu jël téeméer ci yow téeméer tuyaaba jox ko noonu lañ koy toppee day am ñoo xam ne dañuy dem ba jeexal lañ yoroon moom su ko dee gaa yi di def lu ñu am ci lu bon di leen ko sal bor nag noonu la demee yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki bu amalee bor nit ba muy leb fa def ci xelam ne amul yéenay fay kooku yombal suñu borom joom koy taxawal jël xàqi kam amee ci moom te na jëlee mooy day jël lu baaxam jox kee bu amul lu baax mu jël lu boni kële jox ko bi àgg na ci wax ne nit ki bu doon jixaat ci yoonu yàlla ba faatu ca nit ki bu doon ci yoonu yàlla ba faatu ca ak jihaad xam ngeen dee ci jihaad xam ngeen ni mu réyee shahid shahid mooy koo xam ne tey bu faatoo kenn du ko sang kenn du ko sang yooyu yëpp duñ ko def dañ ñëw rek jullee ko daal di koy suul ndax suñu borom da wax ne ñoom wala taxsibanna alladina qutilu fi sabili amwaatan man ñooñu faatuwuñ ba léegi ci dund lañ de ñooñu kenn du lijjanti seen lenn dañuy daal tabbi àjjana shahid moom yi nag yonente bi daa wax nit ki bu fekkoon daa dee ci jihaad nekk shahid yàlla dekkal ko mu dund jihaadaat ci yoon yàlla ba faatuwaat ca suñu borom dekkalaat ko mu nekkaat di jihaad ba faatu ca ba mu ñetti yoon ñetteelu ñetteel ba mu faatoo nee na bu fekkee ne dem na faw mu dugg mu dugg waaye nag ci kaw amul bor boo amee bor nag du tàbbi àjjana moom maanaam bor moom kenn du ko yor di tàbbiwaale àjjana moom wala nag lu tiitu la woon law anna rajulan qutila fi sabilillah summa aasa summa qutila fi sabilillah summa aasha wa alayhi daynun maa daxala di day yaqdi ajuróom doo fa tàbbi te amee amel kenn bor ba boo dee ci jihaad ak ñetti yoon boo ko dee woon ci jihaad nee na bala ngaa tàbbi àjjana bor bi da nga ko fay moo tax bor kii leble moom am na tuyaa bu ju ju koy xaar waaye leb nag ku ko mën a bañ a def moom moo gën danañ ci ñëw léegi ci ndigal li ci sëñ bi joxe woon ñu ñëw ci atte bor ban ban la am ndax lu dagan la ndax lu xaraam la ndax dañ ko sib wala dañ ko sopp loolu dañuy wax ne atte yooyu yépp da ci tàbbi léeg-léeg mu dagan léeg-léeg mu xaram léeg-léeg ñu sib ko léeg-léeg ñu sopp ko léeg sax mu war nag nit ki bu demee ba nar a faatu ngir ñàkk lum jëfandikoo bu fekkee lam koy la la tax mu mën a jëfandikoo ci bor rek la mën a jaare kooku lépp dafa war ci moom foofu léeg-léeg mu dagan dagan gi mooy bu fekkee ne yow yittee tax te am nga yéene fay te am nga loo yaakaar a faye wala boog nga am yéene fay rek def yitte ngir fay ko te yitte ji itam yitte ju mat yitte la loolu boo lépp lu dagan ci yow lay doon ndax suñ borom wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu ida tadaayamtum bi dayn ila ajalin musamman faktubuhu wax na ne bu ngeen lebalantee ci seen diggante kon loolu mooy xamal ne kon lépp mën naa ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw daynin ki faatu itam wax na ne buñ génnee alalam nañ ci génne bor bi bor yi mu amee woon ñu fay ko ba noppi doogu miraas alalam kooku it wane na ne ma yonente bi sallallahu alayhi wa wax nañ ne bi mu fiy jóge am na mbubum koŋam moo xam ni da ko tayle woon ci ab yëwoon loolu it wane na ne kon bor yitte bu ko sababee rek dara nekku ci waaye léeg-léeg mu xaraam fi muy xaraami mooy bi ngay leb sa yitte di jël alali waa ji te doo ko ko fay loolu moom lu rëy rëy ci diina la wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili wa tudlu biha ila alxukkaami li taakulu fariqan min min amwaali nnaasi bil ismi wa antum taalamuuna suñ boroom daa bañ lool jël alali jàmbur te tegoo ko fenn ndax ci suñ diggante yi léeg bor nit da ko koy ameel tey du la mën a fayu ndax la ngeen séq te yow nag nga sukk ci sukkandiku ci loolu ba doo ko fay mukk ndax xam nga ne waa ji moom mun la yóbbu gendarmerie du la fa yóbbu mukk du dem ak yow yoon am na loo xam rus na ko seen diggante nga sukkandiku ci loolu nag ci ne ci ne duma ko fay waa ji wala moom lay mujj fay am na ñoo xam tey boo leen amaloon bor moom moom coow lañ lay coow ak wax jañ cey wax ak lam leen di jaral moo tax moom yow si si te jëpp da ko def ci fay leen moom waaye am na ñoo xam ne tey mënuñu loolu léegi nag bu fekkee loolu sukkandiku nga ca ba yow bi ngay leb sa naroo fay wala amoo yitte ji amoo yéene ji loolu moom sa leb googu jom dafa xaram waroo leb yow si moom maanaam lislaam jom da lay aaye foofu nga leb ndax yonent bi àgg na ci wax ne koo xam ni bi muy leb amul yéene fay kooku ab sàcc la laqiya llaaha saariqan bu dajee yàlla ëllëg ab sàcc lañ koy jàpp atteb ku sàcc lañ koy jàpp loolu yonte bi moo ko wax ci xadis bi ibnu maaji nett li wax ne ayuma rajulin yadiinu daynan wa huwa mujmiun an laa yuwaffiyahu iyaahu laqiya llaha saariqan am na feneen foo xam ne yonte bi daa wax ne itam bu fekkee bi ngay leb amoo yéene fay suñu borom dina moo maanaam moom ngay jëflanteel te dina la sànq atlafahu llahu mooy yàlla dina la sànq dina la alak sànq yi mën naa tàmbali fii ci àdduna xaq jàmbur yi nga yor nii sëñ bi mën naa indil jafe-jafe yi nga am ci àdduna yëpp mën moo ko sabu fere bari nañu bari jafe-jafe ci àdduna nga xam ne jafe-jafe boo génn dugg ci baje beneen te xaqi doomu aadama rek ñoo ko waral te xaq yooyu doo ko duggaale àjjana mukk àjjana moom sa digg ak sa borom bu fekkoon moom kese moom nga dem ba ngay dem yowmal xiyaam yàlla rek nga tooñ loolu mu bay ba nga am yaakaar ndax yàlla ku baax la waaye nit ñi moom wala tooñee moom moom faw ñu lijjanti yow duñ ko duñ ko jéggale mukk xanaa fii sax lañ ko mën a gën a jéggale waaye buñ demee ba yowmal xiyam mu wóor jëf yi taxaw na te mbir maa ngi nii te kenn ku ne bëgg nga mucc te say jëf ak sa ak sa tuyaaba rek ci ngay sukkandiku ngir mucc foofu moom jéggale amatu fa moom da ngay fay rek moo tax yow ma yafiru lmaru min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi li kulli mriin minhum yowma idin chanu yugni borit am nay atte atte yi la ca jiitu mooy dañ ko war a bind firndeel ko loolu mooy mooy mooy mooy diine mooy lislaam yaa ayuha alladina amanu ida tadaayantum bi deenin daa jëri musamman faktubuhu suñu borom moo digle ne bu ngeen dee séqalante ci bor na ngeen ko bind bind ne man kat leb naa diw sàngam mi nangam ji te fas naa ko ko yéene fay ci waxtu sàngam wax yi àqu ah, bi bi nga koy fay loolu mënta ñàkk ci bor waaye loolu ñun suñu jëflante léeg rek loolu sax dama koy rus fi ne nit boo ñëwee di ko leb mu ne la bindal da nga yaakaar ne waa ji moom des na maa wóor lu tax muy bindloo ay këyit fekk bind boobu daa jaadu yàlla ci moo ko digle ndax ñàkk bind fi ne day indi yu baree baree baree bare fi ne léeg-léeg nit faatu ñàkk bind ay bor tax ñay ñëw di wax ne amel na ma ñu ne kii ameelu te loolu day am lu lu bare bare bari nit faatu séq ak nit bor te bind ko mu ñëw di ko fayu ñim fi bàyyi ñu ne ñu ne daal bor bi ginnaaw binduñu ko daal moom nga xam ne dañuy taxaw temm ci duñ ko def te fi ne loolu xamuñu ne mën nañ di jafe-jafe bu rëy ki faatu fi ne dama ci am lu xoromu loo xam ne maag sama sëñ sama mbokk sama xarit bii ñu àndal dama xamul net li sax jar na ko mu déet waaye dafa am miraas moo xam ni dañ faa bokk ne maa ngi maa ngi sëñ bi yàlla dogal mu am bor boo xam ni dañ koo wax nekkat kat kii ameeloon na ko ko waaye nag binduñu ko tax mbooloo mi yépp xaw a jëm ci ne daal moom xaw jàpp bor bi daal moom moom nag moom wax na ko booba ne bor bi am na waaye ginnaaw binduñu ko ñu jàpp ne xëy na dañoo jaawale beneen bor beneen lañ ko jaawale yàlla dogal ñu teg ci ay fan moom yi mu wooma bi may woo ak bëccëg la yaakaar boobu maa ngi maa ngi maa ngi far bët di nelaw tax na sama téléphone xëy dégguma dégguma sone bi yàlla dogal nelaw yooyu ci biir nelaw yi moom ma gént ko moom mi ak ki nga xam ne moom moom moom lañ doon miraas maa ngi moom nu ànd am am sawara wu rëy wu tàkk ci ginnaaw kañ doon miraas maa ngi moom nu ànd di ko fay bi ma yeboo gis ñu war a ma woo ko mu ne ma kat bor balaal doon wax am nay firnde wax a wax ba waxe maa ne ko yow dal boo leer lu ma ko sax loola waaye dama ne ko yow mais nga xam ne bor boobu moom moom des na ko fay ko ndax jàpp naa de am na moom waaye mi kii dem moom bor yi nga xam ne moom la fi bàyyi fi ne yittee mooy ñu fayal ko ko ndax benn dërëm rek mën na koo tee tàbbi àjjana mën na ko nu jafe-jafe bu rëy ëllëg mën na koo tax tee mucc waaye ñii fi ne ñoom alal ji fi ne dañ ko bëgg ñu seddoo ko ñoom seen biir moo tax fi ne ku ñëw wax bor ñu ne déedéet ah dañuy wax rek moo tax miraas man yu bari miraas damay wax ne bor bu waay indi rek nañ ko ko fay donte du dëgg itam nañ ko ko fay loolu mooy li gën a wóor moo gën a wóor ci ki dem ñaareel ba bor waral na ko wutal seere loolu ci àtte yi ci aju la wastashhidu shahidayni min rijalikum loolu suñu borom moo ko wax bor dañ ko wut wutal seere waroo séq ak nit rek rawatina alal ju bari wala lu xaw a rëy tuuti te amul benn seere loolu it baaxul ba tey bu garanti benn dërëm rek mën na koo tee tabi àjjana mën na ko indi jafe-jafe bu rëy ëllëg mën na koo tax a tee mucc waaye ñii fi ne ñoom alal ji fi ne dañ koy bëgg ñu séddoo ko ñoom seen biir moo tax fi ne ku ñëw wax bor ñu ne déedéet ah dañuy rek moo tax miraas man yu bari miraas damay wax ne bor bu waay indi rek nañ ko ko fay donte lu dëgg tam nañ ko ko fay loolu mooy li gën a wóor moo gën a wóor ci ki ki dem ñaareel ba bor wareef na ko seere loolu ci atte yi ci aju la bokk wastashhidu shahidayni min rijaalikum loolu suñu borom moo ko wax bor ko wutal wutal seere waroo séq ak nit rek rawatina alal yu bari wala lu xaw a tuuti te amul benn seere loolu it baaxul ba tey bu garanti ma ne ma ne amit baax na ci ndax gis na yonente bi ci boom ñu wax la ne bi mu fiy jógee bàyyi na bor boo xam ni da ko da ko da ko tayle woon boo ma ne am ab loo ko loo fa tayle loo fa joxe ba keroog ngay fay loolu it baax na ci ki nga xam ne dafa ameel moroomam bor moom maanaam ki ki nga xam ne dafa leb yor bor te yor lu ko fay loolu dañoo xam ne su ko tëj waaye ci kaw nag amu ko moo ko tee fay waaye bu digg ba jotee mu tëë fay te am na lu mu ko faye kooku mu baa des na ko tëj ndax suñu borom wax ne wa min ahlil kitaab yi man in taamanhu bi qinteere yuwaddihi ilayka wa minhum man in taamanhu bi dineer laa yuwaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qaa'iman mais am na ñoo xam ne moom boo leen joxoon benn dërëm rek bu ngeen ko séqee moom danañ la ko indi laat delloo la ko waaye am na ñoo xam ni loo mën a séq ñoom ak lu mu rëy rëy li féeg doxoo ca mu yitteel la duñ la fay loolu nag ci la borom xam yi waxee ne kon waa ji nga xam ne dafa tëë fay te ak ñàkk gu wér wëralu ko kooku euh, maanaam jar nañu tëj ko bàcc bàccal ko ngir maanaam mu jéem a génne li lim gi ba tey bor itam bokk na ci àtte yi mooy ñu wutal ko ab dig wax ne ab bërë waxtu sàngam muñ ci àggee ma fay la loolu mënut a ñàkk ila ajalin musamman ni mu ko ni ko alxuraan waxee am na yoo xam ne itam mu ngeen ci séq bor itam ëppalante waru ci am lu mel ni xaalis ak wurus ak or yu demee noonu ak xeeti saayir ak buru wa xeeti pepp yi yu demee noonu kenn waru caa ëppalante xaalis boo ma lebalee ñaari téeméer ñaari téeméer yi kese laa la war a fay bu ëppee rek nekk riba loolu moo indi alal yi nga xamne mom la bank yi leble borom xam bi wax ni dafa haram ndax yoonte bi mo aaye won wax ni adh-dhahabu ne addahabu bildahabi walfiddatu bilfiddati walburru bilburri walshairu bilshairi waltamru biltamri walmilxu bilmilxi مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا in kana إن كانت إن كان يدا بيد لول يما وخني مانس ca ëppalante waaye lu waaye yii moom alal xaalis xaalis rawatina loolu moom la nga leble rek lu na toll nga war a indi bor itam kenn du ko jënde bor ci misaal borom bitig bi am na bitig yoo xam ne dañuy def loolu jaaykat yenn yi commerçant yi sama waa ji nga tooñ ko leen ñoom dangay ngay ñëw yittewoo xaalis ñu ne la mënuñu laa lebal xaalis waaye nag marchandise sàngam ne moom boo bëggee ma jox la ko te marchandise bi yow soxla woo boo ko jëlee ci ñoom ba ba noppi nag ñu jëndaat ko ci yow mu loolu daanaka moom moom ma maanaam kenn xamul lu mu doon te lañ ko jëndaat ci yow mën naa gën a néew la nga soxla la nga soxloon tey soxla fukki junni ñu la mënuma laa lebal fukki junni waaye nag saako ceeb bi ma bëggee wala marchandise bi ma bëggee ma jox la ko moom fukki junni laa la koy joxe boo ko jëlee ba noppi ñu jëlaat ko ci yow ci quarante mille xam nga loolu <laughs> maanaam kenn xamul lu mu doon ba tey bor daray njariñ waru ci topp loolu qaayida usuliya la boo xam ni borom xam ne dañuy wax ne kullu qardin jarra nafan fa huwa riba maanaam xard leble boo xam ni daray njariñ da caa topp rek yow mii leble bu fekkee am nga ci benn xeetu njariñ rek jàppal ne li ngay leble maanaam loolu riba la bu leble mukk fukk ñu fay la fukk ak benn wala junni ñu fay la junneeg téeméer déedéet loolu loolu dafa xaram leble moom ba lebalee nit lana toll rek la lala war a fay yow nag waroo ci am benn njariñ wala benn maslaxa loolu moo indi teg yi ñuy teg nii borom xam-xam yu bari dañ koo daganal nekk ci ab école wal dara weer wu nekk kenn teg fukki junni su weer jotee ñu ñu teggil keneen boo lëggee ñu teggil keneen loolu borom xam yu bari dañ koo dagal waaye waaye borom xam yi dafa am na ñu wax ne loolu jariñang ci ndax yow lebloo lebloo waaji ngir yàlla da nga koy lebal ngir mu lebal la ëllëg xam nga xeetu njariñ mi ngi ci xeetu intérêt mi ngi ci intérêt yooyu nag mooy xaraam moo moo koy xaraam donte masala moomu mëna dogu am nañu bari ci borom xam yi te man ñoom maanaam gis naa ne intérêt moom mi ngi ci bu ci intérêt rek waaw li ngay leble moom yow dara warul cee nekkal moom waaw. ñu bari dañ koy dugg ci taawanu alal waaye nag euh, jar euh, kullu xardin jarra nafan fa huwa riba maanaam xard boo xam ne jarra nafan nafu am am na ci tuuti loolu laa mel ne que Cheikh Ba la ma kenn ci suñu mbokk yi wax ne moo ko ci seetlu te xaw na ci am nag tuuti intérêt am na ci moom yow lébaloo waa ji moom ngir yàlla moom. am na am na lu tax ngir mu lebal la ëllëg te xarar itam mën na ci am ndax waa ji mën naa faatu mi nga loolu moom fi ne yaatu naa yaatu goo xam ne kenn ñi mu ko di wax ni <laughs> ba tey ki ki nga xam ne dalaa lebal sañoo ñëw di ko jox addiye moom loolu moom moom moom moom moom moom borom xam dañ dañ ko aay maa nit ki lebal la ne la fii weer nga fay ma diggante bi nga ñëw am loo ko bëgg a nuyoo déedéet loolu dañ jàpp ne yow da koy ger ndax da ngay bañ mu fàttali la bor bi wala mu jéggal la ci dara ngay bëgg moo loolu moom dafa dëgënul imam malik dara wax ne ki nga xam ne ko amel bor moom bul ko jox mukk hadiya am na sax ci borom xam yoo xam ne bul joxe feneen hadiya la nga nar a hadiya demal jox ko waaji dugal ko ci bor bi am na ñu wax sax ne saraxe ci boppam bul ko def imaamu nawawi ak ibnu xajar ci alxasqalaani ci fatxul baar yi wax na ci lu bare bari ci bi mu wax ci xadis bi wax ne xayru sadaqati maa kaana an dahri ginan wabda bi man taawulu wax na ca ne borom xam yi wax nañ ne kat tey sarxe sax waroo koo def te ame bor bu amee bor daal sëñ bi fayal xaq yi nga xam ne moo la euh, moom nga amee fayal bor yi ba noppi booy sarxe doo sarxe booy dimbali keneen doo ko dimbali booy maye doo ko booy joxe addiya doo ko joxe addiya te loolu moo dëppoog ndigal li sëñ bi joxe wax ne bu kenn indi bor te fe bu kenn indi addiya te fekk mu amee bor loolu dinaa ci ñëw sëñ bi joxe woon ndigal loolu ba tey ki amee bor it bokk na ci àtteem mooy de moom yeyoo na asaka ki amee bor te yorul jenn alal نحن أنيق موتها مؤمن بربه كوكو يعيون أسكا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين غاربين ما يني برم بر كوكو دسكو جو أسكا بتاي واي كيكو جو أسكا يتم بمكو وجه بر بمكو أميلون تاي يو أميل غما فوكي جوني ما ورجين أسكا ne la kat yow amoon am na asaka ju ma war a génne ginnaaw amee loolu moom fukki junni léegi tiire naa ko ci de loolu loolu loolu kenn sañu ko yow kay da nga ko jox fukki junneem moom bu ko neexee nag mu fay la bor waaye sañoo ko jag génne moom ba tey nit ki bu fekkee ne dañ ko ameel bor alal ju bari alal jooje asaka du ca war waaye saa yu ca jotee nag génneel ko génneel ko benn yoon asaka waaye diir ba mu nekk ca kële moom asaka du ko ca wàll ba tey bor sax dana tee génne asaka fi ne dana àgg ci nga asaka wàcc la ngir bu fekkee ne li nga yor lépp dafa tolloog li nga ameel kële bor ba tey nit ki bu fi jógee itam ba lañoo séddale alal alalam dañoo war a génne ay borom yi moom maa li mu amee ci bor lañu war a fay ba noppi bu alal ji desee ñu doog a séddale bu alal ji desut nag ñu xam ne bay wu fi dara moo tax nit ki bu fi jógee moom li ñu war a njëkk a def mooy xool ay borom génne ko ba mu jeex su fekkee ne tey genn kër la fi bàyyi te boo ko dugalee ci bor yi tey maanaam mu jeex ca ba day ñi ñi nga xam ne ay doom yooyu dañuy xam ne loolu la yàlla dogal nga xam ne moom duñ doon dara. bu fekkee nag ki mu ameel bor tey xamuñu ko xam ne waa ji génn àdduna waaye kam ameel xamuñu ko xam nañ ne am na bor wala gisuñu ko gisuñu kenn ku bokk ñoom dañ ko koy saxel kon loolu yenn la ci atte yoo xam ne aju na ci bor ñu ñëw ci li nga xam ne mën nañ ko lor ay loraanga yu nekk ci gàddu bor bor moom ku ko mën a moytu mooy li gën moom ci dund moom fi ne jamono ji xaw naa lëkkaloog nit ñi moom bor nga xam day mel yow da jàpp ne boo amul bor sa sa sa sa sa sa sa dund sax du xaw a jag doo dem mi ngoog mi ngoog ñu bari loolu lañ jàpp waaye nag gis naa nit nit ki war naa mën a fexe ba génn ci bor nag moo moo moo gën maanaam bor moom ku ca mën a génn moom mooy li gën moom ndax benn ay lor yu baree bari da cee ne la ci jiitu rek mooy ki nga ci la ki nga ameel bor boo dee as gor ku bañ ku la yab léeg te ka nga ko ameel du ku ragal yàlla du ko am yenn jikko yi indil kersa mën ngaa dajeeg momitam itam sëgg toroxtaange mën na ak kersa te loolu rek julit benn julit bëgg ko yaakaar naa ci diggam ak kenn mën na laa wax sa dëgg fi wala ñu sa na wala ki nga ko ameel bu dul ku ragal yàlla ni ma ko waxee mën a laa ñax wala mu wan la ko ci wax wala ci jëf wala yu ni demee te loolu lépp dara baaxu ci rawatina nag soo waree fay te mënoo fay loolu geneen kersa day tàmbaliwaat foofu te mën ngaa dem sax nag ba waa ji bëgg laa jëfandikoo ci loo xam ne yow boo ko amee lu doon bor wóor la kii du la ko nangul moom moo tax xeetu toroxtaange mi ngi ci goo xam ni jullit bu ne war na koo jéem a moytu fi ne nii ñiy jàngale économie économie day am ñoo xam ne wax ne bor mënta ñàkk bu fekkee bëgg ngaa dem ci kanam fekk loolu gis naa ne safaan bi moom moom mooy li gën nag moom ku mën a bàyyi bor moom moo gën leneen nag topp ci itam ci loraanga ji mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xadisam yëpp dañuy gis ne moom day moytuloo jullit ñi bor yonente bi ci moom daana ñaan yàlla musul ko ci bor bukhari nettali na sayidna anas ibn malik nee na yonente bi daana wax ne allahuma inni a'udhu bika min alhammi walhazani والعجز والكسل والجبن والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال بريتي سيرن بي ñaan yim indi ci lu melne حزن الابرار من غلبة الدين وقهر الرجال لا فاي bor bu la not te loolu day am bor leen day dem ba ëpp la doole mom loolu yoonte bi da ci da muslu soxna aysa itam wax na ne yoonte bi daana wax ne allahumma inni a'udhu bika min al mathami wal maghram ma ngi muslu sun borom mu musal ma ci xeeti bor yépp nee na am bis ko ne yow kat li ngay muslu ci bor bari na lool waa lu tax loolu mu ne ko inna rajula ida garima xaddasa fa kadaba wa waada fa axlafa nit ki bu fekkee ne dafa dëkk ci am ay bor bor ya not ko bu waxee mën naa wax lu amul ndax mën na ne bis sàngam dinaa ko indi bu eh, buñ ci àggee naka te du ko man dana digge itam lum du def moo tax nee na su yónte bi nee na may ñaan yàlla musal ma ci bor ndax kii bor ki amee bor li ci di leb dana wax lu amul dana digge lum du def itam ci njëlbeenu lislaam yónte bi buñ ko masaa indil ku faatu day laaj ndax am na bor suñ ne am na bor mu ne yóbbu leen seen waa ji ngeen jullee ko du ko nangoo jullee su amul bor nag mu julleel ko boppam ci mujj gi nag bi futuxaat yi amee ci mu jëm la wax ne kat ana awla bil muminina min anfusihim fa man tuwuffiya min al muminina fa taraka deynan fa alayya qadaa'uhu wa man taraka maalan fa li warisati nee na man kat jullit ñi maa gën a yey ci ñoom maay seen wayjur rek maay seen baay wa azwaajuhu ummahatuhum ni mu ko waxee moo awlaa bil mu'miniina min anfusihim maanaam maay seen wayjur moo tax ku fi jóge te am bor maa la ko war a fayal ba tax na ku ñëw rek mu jullee la boo amee bor mu gàddu ko boo fi bàyyee alal nag mu ne na ko ak njabootam doon ni ma ko junjewoon ci njëlbeen gi itam ki nga xam ne dafa dee ci jihaad di shahid ak li ko yàlla dig lépp wax ne sax bu leen njort ne dañoo faatoom déet bu la wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillah am feneen wax wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwaat bu leen wax ne mukk ne faatu na ñii faatuwuñu ak loolu li mu rëy rëy yonente bi wax ne yughfaru li kullu dambin illa dayn shahid bakar yépp lañ lay jéggal boo dee ci jihaad ci yoonu yàlla bakkar yépp lañ lay jéggal ba mu des benn muy bor fi ne tey siyaar yi ñuy def ak li nga def ci lu baax lépp mën laa jégal sa bàkkaar yépp mën ne ñaan gi ko def ñu jégal sa bàkkaar yépp waaye ba mu des bàkkaar bor bor moom du ca bokk bor moom fay rek motax yonent bi àgg na ci wax ne nafsul mu'mini mu'allaqatun ma kaana alayhi daynun maanaam boo fi sa ak sa dañ koy aj ak suuf buñ la bor yi nga buñ ko fayut nga ci bi rek dem <laughs> métti na kay nag loolu moo leen xamal moom koy woyfut bor ci ñu woyfut de boyet woyfut wax dëgg yonte bi daa wax ne bu leen tiital seen seen ruux yi ak seen bakkan yi nee na ñu ne ko naka lañ koy tiitale mu ne bor bor dafay tiital ruuxu doomu aadama sa ruux day tiitaloo ko yëg nga xam ne lii même boo fi jóge woon tey ji ngir nga dugg àjjana jafe-jafe lay doon ci yow bi am na fu mu wax ne jéng lay doon boo xam ni day jéng doomu adama ji nga xam ne mën na koo taxa texee mën na ko yóbbu ab safaan mën na ko indil njàqare ëllëg itam moo tax yonente bi daa wax ne bor day ñaawal diine ak day nu shaynun li diini shaynu diini maanaam ñaaw day day gàkkal diine moom bor sayidna thawbaan mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mas naa wax ne képp ku fi jóge man ngaa tàbbi àjjana ba mu des ñett moom bu fekkee ne mu ngi ci yow àjjana moom doo fa tàbbi li fii ñett yooyu lijjantiwu lijjantiwoo ko booba lim na ca rëy ak bi ñuy jihaat alal ji nga xam ne moom lañ julit ñëpp bokk nga jël ca dara ñetteel ba mooy bor bor itam boo ko amee nee na àjjana moom dafa tàbbi li féeg lijjante luñ ko bor rawatina nag ki nga xam ne day amee bor ba pare di diidiital nga xam ne da ngay àgg ci war koo fay yor alal ji waaye nga ne dal lii daal naa ko dugal ci kii waa ji soxla ko ko bu ko defee loolu yaa ngi yaa ngi gën a yàggal te kee xam ne su alal moom fi ne kenn ku ne xam na ne borom soxla na ko moom matlu boobu nag mu maatala boobu yonente bi da wax ne ak tooñ la te tooñ ku ne xam na ne lu rëy rëy ci diine la suñu borom àgg na ci wax ne ñii tooñ yàlla ci moom da leen a bëggul moom wala wallahu la laa yuhibu zalimin ak la yahdi zalimin yàlla du leen gindi mukk ak la nuhlikanna zalimina alkane moo leen di xaar ñii tooñ wala yazidu zalimina illa xasaaran سن بروم تكون بتاي الا لعنه الله على الظالمين وان الظالمين لهم عذاب اليم تي دي ديتال سي بور لول اك توغ لا يونت بي نال اك توغ موتاخ صحابه يو باخي نيب لا ندا اي بور دي سي ليكو ميتلو جولي ني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه سونا عائشه نينا دانا واخني الدين هم بالليل ومذله بالنهار بور njàqarey guddi la lay yóbbe ak toroxtaangeel bëccëg mooy guddi gi moom doo mën a nelaw moom sa yitte sa sa xalaat yépp da ma nga ca bor ba noo koy fayee te loolu mooy ñi gën a jàmbaar sax nag bëccëg bi itam toroxtaange la lay jógal mooy foo foo dajee ki nga ameel bor rek jataay moom du neex moom du neex te yenn fulla yi doo ko mën a wane ci jataay boobu itam <laughs> moo tax sayidna umar ibn alxataab itam daana daana wax ne iyaakum wa dayna fa inna awalahu hammun wa axirahu xarbun yooyu sayidna umar danaa wax ne bor na ngeen ko moytu ndax njëlbeenu bor njàqare la ak jafe-jafe la njàqare la te njàqare mooy ay problème ay jafe-jafe la lay indil njëlbeen gi waaye nee na mujj ga ab xeex la moom li cëpp nag loolu du bor yu bàyyi bor yu baree bari fa mu mujj moom jàppante lay indi boo xam ne ak naqaroo ak jafe-jafe ak dëddoonte day gis ñaar ñu ànd ñoo xam ne dañu doon xariti benn bakkan waaye dañuy mujj bor yóbbe leen ci ñu teqalikoo ak dëddoonte am na ñoo xam sax dañuy àgg ci seen kër ya nga xam ne ñoo jàkkaarloo kii ubbi fële kee ubbi fële beneen ba nga xam ne moom <laughs> loolu lépp day am dañ koy gis teqale ay nit moo tax sëñ bu mag bi si ahmad bamba radiallahu anhu wa ardahu daanu eh, digal am na lettre boo xam ne sax am na ñoo wax ne sëñ omar mii la ko bind xuma nag imaam wérlu nañ comme déet mi ngoog waaye lettre boobee nga xam ne sëñ Omar mii la ko bind sëñ Omar Cheikh Omar Diop mu baax ma dane ko xad umirta baada salaami alayka bi an taqdiya kulla ma alayka min ad-duyoon ginnaaw bi mu ko nuyoo nuyoo ba gën a sell dane ko maa ngi lay dénk bor yi nga amee yépp nanga ko fay ndax bor day yàq fa inna dayna yufsidu bi mu ko dénkee ba àgg ba àggal nag ci loolu ca la ca ko wax ne ko wal turi hada alxatta kulla man qadarta ala an turiyahu iyahu min al muridina mbind mii mën a yónnee koo ko mën a wan ci murid rek nanga ko ko wan nga xam ne ndigal la loo xam ne murid yépp la ko digal ci bor boo am na nga ko nanga def yitte ci fay ko te moytu bor ndax bor da yàq waaw teg ca itam ne كتبته نصيحة لكم إلى جميع المريدين leebire gi dama ko bind jëmale ko ci yow waaye jëmale ko ci murid yépp ndigal li mooy ngeen moytu bor te ku ci am bor nga def yitte ci fay ko am nag kum koo xam ni dana ko moom ila jaarika alladi ismuhu fi'luhu kasmihi mi ngoog mi ngoog si xasan mi ngoog masha allah mi ngoog ñu nga sëñ Daaru Njaay ca la ko ko yóbbante moom da koo jagleel sëñ bi yëmut ci loolu àgg na ci wax ne bi mu nekkee ci géej gi am na lettre bu mu yónnee borom daal moo ne ko na ko murit yépp gis lettre ba dajaa wax ne ko summa inni amuruka bi an tuallima annaasa anni nahaytu an an yatiyani ahadun bi cheyin min almaali a alayhi daynun maa ngi lay digal nga xamal mu murit yépp ne leen kat bu ma kenn indil addiyee ba pare ba noppi am bor loolu ndigal Sëriñ Tuubaa ku am bor rek bul indi addiye da caa teg ne li anni xaasabtu nafsi wa nawaytu an laa akuna sababan li xisaabi ahadin aw dayqihi fantabih wa nabbih man damaa xisaab sama bopp te ëllëg yowmal xiyaam bëgguma ñuy lijjanti mbirum kenn te ma sabab ko ndax bu fekkee ne yow amal nga nit bor ba noppi indi addiya la nga indi ci addiya mënu nga koo joxe xam nga ëllëg xam nga mën ngaa lijjanteeg waaja te lijjante boobu yi bëgguma di ànd kenn lijjante boobu di am loolu yi bind na ko ci bërëb yu baree bare baree bari ca majmuwa bi Cheikh Laat mooloon wax na ca ne maanaam fay bor day farata te joxe addiya day dugg ci naafile yi donte nag addiya lu am solo la lu am daraja la lu am degré la loo xam ni sama benn benn mbokk boo xam ne ab sëriñ dama wax ne wax yi baax na waaye nag addiya moom bu ko kenn woyfal addiya moom kenn du ko woyfal waaye nag jëmmi bor dafa maanaam ameel gi nga ko amel day xàq joo amel keneen moo tax sañ bëgg nga ñëkk a lijjanti loolu yi noonu yi Sëriñ Tuubaa yëmul ci lool wax na wax ju gën a dëgër wax ji wax na ne ci mi ngi ci majmuwa bu mag bii ñu mu wóol ci jamono sëñ Seeru wax ne fa kullu man ataakum أو أتاكن وقال لكم أو لكن أني أطلب منكم أو منكن مالا أو أنني آمركم أو آمركن بغير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك فقولوا له أو قلنا له كذبت كفي نيو نلن مالا لا دره moo xam ku mën a doon rek nee leen ko li nga كندر amul أمنك te sàkku tuyaaba ak bëgg lu baax tax nga indil ko ko nag mu doon hëddiye joo xam ni yu yàlla nangu lay doon te bindoon na Cheikh Mouhamadou Moustapha wax ko njariñi addiya loo xam ni yaakaar nag gën jaaneew fukki njariñ lim na ko ca ci yoo xam ni lu ci ne rek jar na joxe addiya waaye day fekk nag di ngay joxe addiya nga bañ am bor loolu nag yombut ba tey nag moom it moom ba seete ndax commerçant yi daanaka ñëpp ci ci ci bor lañ dëkk moo tax bor moom lu lu lu naqaree waxtaan la ndax moom daa daa am jafe-jafe moom bu ci am sëñ mag bi nag mooy suñu roywaay ci lépp moom foofu laay jeexale sëñ Tuubaa mooy suñu roywaay mooy sunu sëriñ di suñu yaakaar yi tey ak ëllëg di suñu ndey di sunu baay waxoon na ca bu yàgg waxoon ko mag ñi ne leen ne ngeen xam ne murit buy doog a jëbbul mi ngi mel ne liir buy doog a juddu waaw liir buy doog ko juddu ne liir buy doog a juddu ndax xam ngeen leen lu mën a jëfandikoo lu dul meew mii balle ci wenn ndeyam ñu ne ko xamuñu ko liir buy doog a juddu wenn maanaam meew rek lay mën a jëfandikoo mii balle ci wenn ndeyam boole ci mu ne murid bi noon la mel booy doog a juddu booy doog dugg ci murid gi leen rek moo la amal njariñ mooy li la sëñ bi digal rekk moo lay amal njariñ leen loo ci yokk rek da ngay gàllankoor sa bopp mu mel ne liir bu bëgg a lekk ceeb mbaa mu bëgg a lekk yàpp day sonn waaye mënu ko jëfandikoo ne nag ndey joo gis day feeñ ci doom ja sa ndey bu fekkee dafa am soow day feeñ ci yow bu fekkee da judd sa amul dara ci soow yow ci tumuranke ngay dëkk ne nag sëriñ noonu la mel ci ab taalibe sab sëriñ bu dee di ko xam ku yàlla gërëm la day feeñ ci taalibe bi dana wax nag ne yéen maay sen ndey maay seen maay seen baay te man ku nàmp ci man di nga te di nga am kattan te di nga am di nga di nga di nga di nga am xewal moo tax nee na ngeen sax fi man ba ma feral leen kuñ ci feral nag bul mëq suuf ndax ku mëq suuf da ngay wéradi da ngay feebar te ku feebar man ngaa faatu ne xam ngeen luy suuf see suuf si mooy àdduna ak waa àdduna ne nag doom bu gisee ndeyam liir bu gisee ndeyam du am soxla ci keneen xam nga fi ne suñ jotaay bi bu fi jigéen ñëwoon ak doom président bi sax mën na fee nekk wala sax xalifa sallallahu alayhi waaye doom ji liir bi moom xamul ñoo ñëpp moom yaayam rek la xam moo tax may wax ne wax ji sëñ Muntaxaay wax te wax ko ci ne yowmal xiyaam bu nu fa demee bu gisee yàlla ak yonente bi te sëñ Tuubaa lay loolu lay tekk mooy murit bi sëñ Tuubaa mooy mooy mooy mooy mooy ndeyam mooy léppam koo mën a gis ko ak lu dara jàmm na it xamu moom yoom sëñ Tuubaa rek lañ xam ndax yowmal xiyaam imaamul Buxaari wax na ne nit ñi danañ jaaxle dem ca seen maam aadama نقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كون بون يوم القيامة لاني ديمل رك موي نون ليجندي بغي سيني دوار رك موي تي يوم ندعو كل اناس بامامهم تي موي سونو ايمان سيني توبا مومي نك مو ورا نك سونو روي واي موم لاني ورا ديف واخوما لا لوم ديغال موم دنجا ورا موي سون تيميري لوخو لنجا ورا جابي bu ñu ko digalutoon te jëfe ko rek loolu moo dañ caa war a mooy waxuma laa nag lu mu nu digal te moo digle ñu moytu bor ku am bor nga fay ko yëmul ci loolu moom sëñ sëñ bi ak dundam mësta amee bor benn bor lañ mas a wax lañ laa mas gis mu wax ne am na ko te kenn la ko amel muy rasulullahi sallallahu mooy li ma xam ne qad iltazamtu qad iltazamtu lahu fi kulli ma sanatin ma daama aqli ma'i daynal hadiyaati borub jox ko hadiya moom laa ko amee maanaam hadiya yi muy jox yonente bi loolu bor la ko jàppoon ci moom xidma itam bi mu koy defal dafa wax ne bor la ci man qilaami alayha daynu ixdaami nicmati wa ixdaamuhu anqa dalaali wa wasmati liggéey bi muy liggéey yonente bi loolu bor la ko jàppee maanaam du loo xam da koy def di ca sàkku leneen déet loolu moom dama ko ko ameel war ko ko jox tagg gi nga ko doon taggit bor la ko jàppe woon mooy damintu lil muxtaari kulla aami daynal madaixi ila ximaami julli ci yoon bi dem bor la ko jàpp woon alayya daynul madaxi wasalaati lahu li xubbihi ila al bëgg gi ma ko bëgg tax na sasoo naa gàlloo naa at mu ne dinaa ko séddale ñaari xaaj juróom benn weer yi ma koy tagg juróom benn weer yi may julli ci moom sallallahu ala rasulillahi wa sallam kon loolu mooy borom ñun nag bor boobu rek lañ war a am suñu diggal sëriñ bi itam ak suñu diggal rasul la ak suñu diggal suñu borom mooy liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ bi te yàlla rek tax euh, lu lew ñu di ko fàggu te yàlla rek a tax lijjanti nag mboolem xaq yi nga xam ne moo la gën a jege sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa njaboot ak euh, ñi nga njaboote ak bor yi nga am ak loo yóbbu nag ci kër sëñ ba te yàlla rek a tax nag يلا يلا دفع التوفيق لول لب جابني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سريني بقي على تمي نينكو ساكوون أمانكو نكوسون جورت وعي xam naa te daaxulul kalaam dana am ci biir waxtaan wi ngir waxtu bi dafa des muy bokk yi fi ku am laaj boo xam ne jëm na ci lim doon wax nga indi ko ñu jox sëñ bi mu jàllale ko eh, buñ dégloo waxtaanu sëñ bi ak thème bi fim ko tàmbalee ba fi mu ko bàyyi ba fi wàccee kàddoom njariñ kese la ci képp koo xam ne jullit nga buy dund ci kaw suuf ndax fi mu tàmbalee waxtaanam ba noppi ñëw ci xamal ñu lan mooy bor ak i attam lor yi nekk ci biir lin dagan a def ak lin ki dagan a leb ak ki nga xam ne daganut a leb ak bor ñi koy amante dañ ko bindante mu ami seede ak la ci aju lépp boo ko seetee xarfan bi xarfin loole am na lu ñu loo xam ne njariñ la lu ñëw ci ñun mu am loo xam ne nag ci biir waxtaan wi njaboot gi war nañ koo bàyyi xel ginnaaw sun maam si omar radiallahu taala anhu suñ tubaa ko bind lettre bi te lettre bu ngeen demee ci mañ moox boobu chef laaj boobu daje dajale lettre baa nga ci biir muy lettre bu am solo bu riis kon war na ci ñun képp ko xam ne sëtoo nga ci kër sëñ omar nga fexe balaa ngaa faatu bu nga bañ a faatuwaale bopp ca nag li koy maye mooy doyloo di la yàlla jox doylu lu am solo la ca li xew jamono képp ku ko topp képp ku ko topp ci jamono ji ñu toll sa dundinu àdduna dana naqari ca loolu mooy ñàkk doylu mooy nit ki nit diw am na lenn kon war war na ma koo am diw egg na fenn kon man war naa faa àgg ca loolu yow mënoo koo lijjanti ci lu dul ay dóori mart ay dóori mart nga ko mën a lijjanti jël fii taf fii jël fii taf fii sul bukki sulli bukki ba jàpp na yow la nga am lépp alal ju baax la fekk na du alal ju baax ca sa maam suñ tubaa ne ko na nga maytu bor na nga maytu le bor kon njaboot gi nan bàyyi xel loolu mar naan bu mu ñu tax ñu naan am sebeti. mar naan bu mu ñu tax ñu naan am sebeti. kenn ku nekk ci ñun na nga dunde sa ngor fi la yàlla yemale nga xam ne lii la la yàlla yemaloo te képp koo lebi dina am pas-pas fay ko la jamono toll sëñ bi wax na ko ci biir bari na ñoo xam ne am danañ fay waaye am danañ lépp mais amuñu yéene fay amuñu yéene fay saru xadis yaakaar xadis ba boo demee daan ci fekk fi nit ki bu amee bor bu faatoo ban suul ko dañ koy jéng te di di jéng ya li fekk ñuy fay bor ba li fekk ñu fay bor ba ñun nag dem nañ ba xaq yooyu nga bor la ñun dañ koo néewal te sëriñ bi wax na lu am solo loolu miraaskat yépp war nañ cee bàyyi xel nit ki bu fekkoon ne génn kër la fi bàyyee kër gi buñ ko jaayee cinq millions la mu amee borub cinq millions doom yi amatul lu war a doon kon war nañoo jël cinq millions yooyu joxe ko waaye dañ naan léegi doom yi nañ ko jéem a gàddu nañ ko jéem a def nangam soo liggéey ba topp ba topp la ci kon yooyu lu am solo la li ma gën a nekk ci waxtaan yi nag mooy bii mu indi ca ko fi mu ko war a indi mooy leetar bi sëñ Tuubaa bind sëñ Omar bokk yi ñun taalibe yi yaakaar sëñ Omar laa wax de nan gën a góorgóorlu suñ ngor suñ jom alali jaambur ñu ba fa la sëñ Tuubaa waxoon seen moom dafa seen moom safa shay ul xayri laa taqrabu alali jaambur ba fa la tudd alali jaambur ba fa loolu la sëñ Tuubaa waxoon seen moom dafa di ak seen moom ne leen shay ul xayri laa taqrabu yëfi jaambur ba fa kon yëfi jaambur ba fa boobu muy ki nekk biir réew mi wala ki nekk bitim réew mi foofu mën a nekk na nga ànd ak sa ngor ak sa jom ca xam ne sa maam kat Sëñ Tuubaa nee na kon na nga moytandiku bor na nga moytandiku lekk alal jàmbur na nga moytandiku lekk alal ju loolu nag la koy maye mooy doyloo li nga am nit na su doyluwut dana dugg ci loxo kon nan leen doylu bu baax a baax a baax doomu aadama dafa war a doylu kon loolu laa bëggoon a teg rek ci waxi sëñ bi di ko sant di ko gërëm li ñu ko sant di ko gërëm mooy jàppandal gi mu jàppandal waxtaan bii yaakaar naa ne koroog bi ñu dajee bi lañu saqaafiya bi dajee ñu waxtaan ba tudd turam ci jataay ba ñu ne ko nan ko fexee am sëñ Modou mii laa woo na ko jox ma numéro sëñ Amadou bi mu ma joxee numéro am laata moo koy jox moom sëñ Modou woo na ko moom sëñ bi ne ko dana am ku la woo kooku mooy imaam kër sëñ amar ba dana la woo waxtaan ak yow bi ma ko jotee wax ko ne ko ñeenteelu ajjuma ba leen soxla ci weeru koor dana ma insha allah rabbi fas naa ko yéen bi ma ko envoyé thème yi thème bi sëñ bi moo ko tànnal boppam dama bind thème yépp envoyé ko ci whatsapp am fekk ñun bi ñuy bi ñuy dajee jox gànna misara fi mu toll mor ko waxtaan mu irada anda cheikhul qadim lan jàppoon na nan ko ko jox mais sëñ bi bi mu gisee kii wax na ma ne ma thème boobu sax yàgg na ko traité fu nekk waaye ne ma nag ndax ab daynu ahkaamu adraaw jël kenn jël na ma ma ma jël naa thème boobu lan gis lan la nga gisoon ba jël ko nag ñun nag lu ko raw gis nañ ko ci loolu su njort kon yàlla na la yàlla fay mbàkke baal yàlla na saw fan gudd lool yàlla na nga gudd fan yàlla na am ngërëmal Cheikhul Khadim yàlla na nga am ngërëmal Cheikhul Khadim ndax gis na l'islam ji ni ñu ci taxawoo ak ni ñu ciy waxtaane ak ak ak fi nga xam ne fi nga koy jëmale te ku la gis xam ne Sëriñ Tuubaa rek la kon yàlla yàlla na yàlla na Sëriñ Tuubaa gàttal ñu boppam ci nga am ngërëm ngërëmal boppam laaj bi fi jiitu na sëñ bi ci li wax ne ñi nga xam ne doo nekk ci bitim réew léegi-léegi ñu amee tubaab tubaab bi ay bor te tubaab yi ay jullit moo xam ci jamono jooju léeg-léeg ñu dem ba tubaab ba leen lebaloon duñ ko gis mu ne ndax bor boobu ñu lebal tubaab bi ca tubaab yooyu ñoom duñ ay julli ndax bu ëllëgee fee lii nga doon wax dafay dugg wala déet waaw maanaam ki nga xam ne dafa ameel bor te kam ko ameel du mu jullit ndax kooku jar na maanaam tëkko yi ñuy wax ci ku fayut ak yooyu dana ko ci fekk wala du ko ci fekk mm. loolu de moom mooy bor moom bor mm. rek la amel ko julit ak amel ko bi yéefar moo ci yar moo ci yem na xaqi doomu aadama nga nga nga nga jël ba tax na kooko mën a amel rek jàppal ne yow da nga ko war a fay da nga ko war a fay bor moom amulu teqale ci ki nga ko amel yow am nga bor mm. amel nga ko doomu aadama gis nga bi kéem tayle woon dirom bi muy mbubb koŋ ma ab yëhoot la te yonte bi daa jëflanteeg ñoom ñu di ko lebal mu leen di fay kon yow boo ameel bor boo amee bor ameel ko ab tubaab yow amel yitte ci fay ko rek te xam ne boo ko yut nag di yiñ ci wax yitte ko yëpp dana la ci fekk moom ndax yow doomu aadama nga amel joo war a fay rek xaq jàmbur nga yor Yang gooyee nag du jegeen ku du ab julit bi ne war maanaam xaqam waru ko sàmm déedéet ñi dul ay julit it da nga am xaq xaq yi nga leen amel da nga leen ko war jox ba mat sëkk yaakaar na loolu doy na ci waaye jamono ji dafa am xeeti banque yoo xam dañu lay lebal xaalis nga war fay te mu mën fay ñu lay topp ñu lay topp bu ñu yóbbu police ñu sa amul an lay topp sa kàcc kàcc kàcc kàcc bu mu mënul dara ñu baal mu bëri la nga def loolu loolu ñun ministère wax beneen bi ci taw muy muy mooy li ñu dund suñu biir say sàmm wax nga def benn gis pour benn réew mën a mu cent yi ngeen am lan ak un euro yi deux euro yi ngeen am lan seen biir di leen ko fayal ci bopp wala ba nit un euro na ko laaj sa morom amul naa ne da ngay delloo ki un euro te léegi ñun suñu bopp li ñuy dund lépp ci immigré yi koo gis amel na xaalis moroom koo gis amel na xaalis moroom dem nañ ba xaalis boobu def wuñ ko ay bor bërki démb aéroport bu Las Palmas daa jox ba dañu benn waay boo xam ne xaw ko dëgg rek am na ñeenti at amel naa ko six cent euros bi mu nuyu war ma nekk soo ñu ngi ma jàmmante ma woo ko ñëw ko ma fee ñoo ko bàyyi naa la xande dañ sopp mu suñu jëkk naa ko plaata xeeti xeeti yooyu ñu dund suñu biir moo bari lool suñu biir fii laa ko ñëpp ci ñi immigré boo xam ne ñenn mu ne ma ma na ko ma di ne damaa bi. mu mim ko naa ko waaye. ah defu ñu xaalis bu ñu tolloon man xaalis topp mooy mag mag laa xam waaye bu njëkk a li ma ko doon tax a far mooy jéggal naa fi nekk sa biir mooy la sëñ bi laa bëgg a leer ñun suñu biir yi ñu dund. Mm. amal 2000 facettes 20000 facettes 5000 facettes 1000 100 euros dem ba daanaka ko ko ba ngeen waaw waaw waaw waaw waaw ñaari ñaari laaj la mel na ne laaj bi mujj nag moom mooy ñi nga xam ne ñooy tukki te li ñuy lebalandi seen seen seen biir te xëy na duñ ko amal solo bu doon fii ni nga ko misaale ay téeméer ak ñaar téeméer ak ñeent téeméer loolu nag bor rek la nag moom waaw ah, donte fukki dërëm la bor la bor moom nit ki ci moom moo war a am yitte yow loo amee lu la nit jox te mayu ko rek nga xam ne mu wër la lii bor la nga fexe ba delloo ko donte waaja am na lu ngeen séq loo xam ne wër la boo koy delloo mu may la itam yow delloo ko ba mu may la ko rek moo gën a wóor xam nga tey nit ki bu génnee àdduna te waaja jotu ko may kooku maanaam malayka yi bind moom li ñuy xam mooy yow leb nga rek la ñuy xam waaye gis ñu fu ko waaji maye gis ñu itam maanaam fu ñu fare boobu dafa am malayka yoo xam ne kiraaman kaatibiina yaalamuuna maa tafaaluuna ni ko suñu borom waxee ñoo xam ne moom loo def rek bind nañ ko boo jëlee ci nit bor danañ bind ne am nga bor yow na da war a yitte yittewoo ñoom loolee ñu bind ñu far ko fañ koy fare nag mooy waaja ne la may naa ko wala nga delloo ko nga fay ko wala boo fi jógee ñu fayal la te yii nga wax nii ni nga ko waxee lu ñuy bind moom ndax yow ginnaaw da ngaa moom ci aéroport bi nee nga fàttali ko ne am mas nga ko amel bor kooku fi ne moom bu ngeen dajewutoon man man ngaa dem ba ëllëg fi ne tey maanaam maanaam bor ba mën naa naax te waaji du la ko du la wax ne jéggal bu ko dee nga yóbbaale ko yooyu indi jaf mooy indil jafe-jafe ku am jafe-jafe yowmal xiyam loolu la fa indi jafe-jafe waaw xiyam ku fa am jafe-jafe yu sew sewaan yii nii moo la fa indi jafe-jafe gis na suñu borom dul xiyam dara dañ ko dul bañ fay dara dara dara ak lum sew sew ak lum tuut tuuti dégg nga dañ ko dul te ñiy bind moom lépp lañuy bind duñ bàyyi dara banque bi nag moom li ci am mooy banque yi ñoom ni ñuy lebalante bu dee suñ banque yii nii mooy qaayida bi ma waxoon nii bor biñ lay biñ lay lebal ñoom ñi la koy lebal dañ ci am intérêt buñ ciy teg dañ lay lebal téeméer ne la booy fay da nga ciy teg ñaari dërëm wala da nga ciy teg fukki dërëm dañ lay tegal lebal junni bu ñu la lebal yaakaar naa dañ ci teg lan douze pour cent wala nga xam ne yow li nga leboon lu ko ëpp ngay fay intérêt yooyu nag moo ko xaraamal dig bi nga xam ne ci nga ko war a fay buñ ci àggee tey boo fayut dañ ko yokkaat dañ ko yokkaat feneen loolu mboolem ribaa bi ngay dégg ci ci ci ci ci banque bi loolu moo ko jël dugal feneen ndax banque ci jëflante yooyu fi ne ci lay dund mooy day leble waaye ki muy lebal da cee teg ay loolu nag moo ko xaraamal léegi nag ñoom am na ci ñoo xam ne am nañ da am euh, teengal guñ ci teg ba yow boo fay siwu danañ jël sa alal ndax da am garantie boo yóbbu dañuy xam ne am nga oto wala nga am kër wala yooyu ñu doog laa nga lebal boo fay siwut ñu jël si kër gi saisir saisir la am na ñoo xam dañ leen yóbbu dañ leen yóbbu police nii nga waxee nag am na ñoo xam dañ leen yóbbu police waaye loolu lépp na jullit bi ci moom daa am loo xam ne bala laa kenn xisaab yaa war a xisaab sa ya war a xam ne lii même banque bi bu ko fàtte woon boo am am na ñoo xam ne mën nañu def ci pexe ci këyit ba kenn du xam ne sax leb nañ wala ñu jéggal leen ko ci ay këyit rek ak i pexe loolu ba suñu borom ma ngi koy bind moom te loolee suñu borom bind nag moomata lijjanti te ëllëg moom yowmal xiyam sëñ bi moom lu mat a xel la te dara dafa wóyuful di waaw dara wóyuful ku la ko woyofal rek Cheikh Abdou Khoudoss baax ma dara wax ne ku la ko woyofalal rek nana la faa indi motax lijeenti yi nga xamne mo dox sa sa digg nit yi mom ci ay xaq loolu mom loo ci mën a bala nga fay jóge nga def ko loo ci mënta lijjanti nga bind ko ba boo fi jógee li nga yor ci alal buñ ko ci buñ ko jógee ni xëy na mu mën caa génn waaye ñee dañ la ko topp wala duñ la ko topp rek nga bëgg a taxaw loolu yëkkaru ma ne mooy lëgën li gën mooy nga fex nga fex ba fay leb ci banque yooyu nag moom dafa xaraam moom bu fekkee afa am intérêt moom riba lay tudd dafa xaraam moom bu fekkee benn lenn dañ ko ci teg rek dafa xaraam moom te nag leneen am na ci mooy man seetluwuma ñu ko def daanaka mu mu baax jëm wala boo xëy na ñu ndaw ñi boog ñi ma ci xam ay gone yoo xam ne ñuy lem jëndu taxi taxi ba day paan léegi maanaam yam xaqullahu riba maanaam riba yàlla da cee génne barke mm-hmm. maanaam barke barkeb alal da yàlla da ko génne ci mboolem luy riba yam xaqullahu riba wa yurbi sadaqaat loolu suñu borom wax moo tax ñi nga gis ñu ci lef ñi cëpp dañuy gën di daanu fi ne dañuy dem ba àgg ci digg ba duñ mën a fay banque bi tegaat ci lu ëpp la lañ lañ lañ legaat bi moom da gën di yokk rek moom ngay gën di sëf di la gën di sëf rek ngay gën di waxtu xam ne islam daana may nga dem leb ci wala dara ji de moom xam nga fuqaaw yi moom fiq moom daanaka lépp bunt bunt moom maanaam day am ñoo xam ne bunt buntu lañ ko jéem nañu waaye gis naa daal loolal jë jërul benn dara maanaam lii rawat na ab murit nag boo xam ne Sëñ Tuubaa daal joxe ndigal lii moom yow boo mënta leb it bul leb ci banque yow <laughs> lebal sama kum taalibe rek bisimilah. man euh, damay laaj comme bor yi nga xam ne yenn saa yi état yi ñoo koy leble seen néew askan comme ñu ne DER yi nga xam ne dañ naan dana lebal képp ku demande ku ne daan lebal sa daan la lebal cinq cent te yenn saa yi ñoom leble gi lay lebal daanaka moom dan la koo may ñooyam ndax duñ la ko laaj si tey boo du ko farlu doo ko fay léegi te ëllëg it wax na ne bor moom àq la ko yàlla di toppante ndax bu boobaa àq jooju ko ku mu koy fay muy bu njëkk hmm. ndax état bi ko fi li moom lébalu la alal alalu askan la la la ba waaw loolu gën a rëy sëñ bi waaw benn ñaareel bi li sëñ bi laaj léegi ci leb bu yéefar ndax kon du dugg ci li sëñ bi waa mag ñi ci njaareem ne leen na ngeen moytoo lakk seenum sàq te moytu koo wàll yaram ñu laaj ko lan mooy lakk sam sàpp mu ne mooy jël acte bi moom hmm. amul lu baax hmm. mu ne bu dee wàll yaan ko mooy tooñ ab jullit ndax boo liggéey ci sa lu baax la ñu jël jox macha allah macha allah loolu kay dugg na ci loolu na ci ndax yéefar lu baax di nga ko waxee lu bon rek la am soo jëlee xàqam moom lu bonam loolee rek dégg nga moom moom lañ lay sëf yal na yàlla musal ci loolu leer na loolu wax sëñ loolu wax ji wér bi wax nag mooy moom état moom bu la lebalee état yoru maanaam état mooy mooy mooy Sénégal gépp rek ñoo la lebal état lu mu la lebal jàppale Sénégal gépp marché lebal loolu fi ne moom moo gën a rëy moom loolu moom donte état bi waxu ca jëm ak fayu waatu la ko fexal ba fay ko moom ndax te yow man xiyaam boo fa demee Sénégal gépp taxaw sa kanam moom di la laaj di la laaj ay àq moom te <laughs> loolu moo gën a rëy moo loolu moom lu matam a moytu la am état nag am na yu muy leble yoo xam ne teg intérêt moom loolu am na yoo xam dañ ko jubloo dimbalee nit ñi waaye ginnaaw bor la tudd rek fexal ba fay ko fexal ba fay ko loolu mooy li jàpp waaw man sëñ bi damay laaj dafa am benn fan yi jàll ku ma doon laaj benn jëflante boo xam ne day mel ne day dugg ci bor hmm. ci wàllu banque hmm. waaw dafa am banque boo xam ne Amérique la ne hmm. maanaam da dalay laaj position boo xam ne tey jii am na ñoo xam ne 1 million la ñuy joxe am na ci ñoo xam ne mën nañoo joxe ba 10 millions am na ci ñoo xam ne mën nañoo joxe ba ëpp lool lu ëpp lool waaye masalan ci ku joxe 1 million moom chaque moi bu ne maanaam danañ ko fay 50 mille moom day dajee seen alal waaye chaque mois dana ko fay 50 mille bu at mi jeexee mu jox ko 1 million ndax loolu bor la bu dee bor ndax lu dagan la wala déet am na banque yu bees yoo xam ne fi ne loolu la na xewal daal waaw xeeti jëflante yi mu wax ne lu bari la léegi ci internet beeg yooyu nga xam ne nga xam ne yow da ngay bindu am loo dugal weer wu ñuy am ñu am lu ñu la dugal loolu nag borom xam-xam bi dañ cee wuute waaye lépp ci borom xam bi dañuy jàpp ne bor rek la yow da nga leen a maanaam maanaam bu dee bor bi ndax lii moom daa ab jëflante ñoom lañ koy tuddee moom ak ab liggéey lañ koy tuddee action nga am bu fekkee liggéey la boo xam ne bu wér la nga am loo joxe. bénéfice ba ngeen séddoo ko te te te tolloo ca loolu ba dara nekku ci xam nga waaye bu dee ci internet bi yii ñuy wax nii loolu du doon ab liggéey ay ay mbir la yoo xam tey da ngay ñëw ñu wut loola kat yow wutal fukki nit ñoo xam ne yàlla leen dugal kenn ku ne joxe ñeent fukki junni masala yow ñi ngay indi lu ñu toll loolu lañ lay dugal laatal loolu xeetu jëflante boo xam ne xarar da ci am am lënt dal am na ci mu réy réy moo xam ne yooyu ku ko mën a moytu moo gën bokkut ak nag nga fekk nag société boo xam ne sëñ Modou mii moo taxawal di liggéey bu ñu xam ñuy jëndi xar bu tëbaskee ñu jaay loolu nga ñëw joxe sa alal bénéfice ba ngeen séedoo ko loolu kay dafa lu dagan moom dara nekku ci waaye xeeti jëflante yi nga xam ne moom la ñuy wax ci internet ak yooyu yooyu moom yi ci bari ay lënt da ci am ay naxaate am ci euh, te te te maanaam yu ci bari wóorul daal moo yu mat a ci jullit daal. incha allah ngay laaj. taw ba a ci lu luyaas si kër yi maanaam kon nga doon fay cinquante pour cent mais bu doon kër ci bopp mën na ñëw ñu doon bépp lu mooy laaj loolu de moom la ca ne mooy daa mel ne ni nga ni nga waxee jafe-jafe yi bi mu amee daa am état yoo xam ni dañoo wax ne ni ko waxee kër yi ñi ñi luye genn wàll ga la ñuy joxe état bi joxe leen la ca des loolu moom bu amee dara nekku ci ndax yow état bi dalaa jëlal sa genn wàll xëy na nag borom kër gi léeg-léeg mën laa bëgg maanaam mën naa bëgg lu gën a bari tax mu bëgg maanaam a ah, joxewu ko bu dee nag joxewu ko nag moom lu may kat la ci tane mooy li nga wax ak borom kër gi moom nga xam nee nga ko dinaa la ko fay weer wu ne moom loolu nga fexe ko matal ko soo ko mënee soo ko mënu nga génn këram mi ngi mi ngi ah, waaw ah, waaw mi ngi mi ngi al muslimuuna ala shurutihim suñu eh. jigéen eh. ñi ñu toog ci hmm. kër yi. dañuy def bu xew dañuy def ay natt. waaw ci ay kàmm. kii doon li woon na woon ñaar kër kii doon ñaar kër lebaloon naa la ñoom dañuy def sax ba ci bu ñu amee xew. kañ joxoon bu leen dugg ñu ne ko war nga maa jox ndax dama naan lebaloon naa nga. waaw te loolu te loolu ñuy lépp leen te ñoom noonu. su ci faatu jeex na kenn du ko tudd. kenn du ko tuddati kenn du ko tuddati. waaw loolu nag moom. lu lu lu lu mat a lu lu naqare li jënd lay itam itam te te mat a bàyyi xel mooy jigéen ñi dañoo am seen jëflantey bopp yoo xam ni ci xew yi lañ koy lañ koy defe te dañuy leblante itam leble lañ koy tudde nag dug may moom xam nga xew xew yi moom dimbalante la woon ci cosaan daa mel ne ki am xew nga am loo ko jox ngir yàlla ngir mu dimbalikoo ko ci xew yi waaye ñii moom dañ koy bind doon def ko bor bor ba itam léeg-léeg ëpp la ni la ci am ndax bu ma la lebalee faw ma jox la lu ma ma maanaam bu ma lay fay faw ma teg ci dara am na ñoo xam ne duñ ci teg dara itam waaw loolu am na ci am na ñoo xam ne li nga leen lañ lay jox moo tax yooyu moom jëflante yooyu moom dañ koy dugalaat ci bor rek lu la waay jox daal te muy te boo koy fay doo ca teg dara loolu moom jëflante bu bu lislaam la bor rek lay doon waaye nag fexeel ba fay ko itam boo fi jógee itam ñi ngi fi bàyyi nañ la ko fayal ni nga ko waxee nii am na ñoo xam ne jigéen ñoon bu ñu fi jógee lañ jot a ci bor duñ ca duñ ca wax jëm te loolu dañ ko war fay dañoo carnet ko doon bind ñam amel ñëpp ñu fay leen bu fekkee nag bor bi da nga cee war a teg dara loolu moom mooy liñ doon wax léegi day dugg ci riba bi ñu doon wax loolu da ci am loolu la lislaam aaye waaw loolu moom moo bari lool carte yi loolu moom moo bari loolu karnay karnay sarax yi ngeen di loolu bàyyi si imam moom mu jëmal bismillah bismillah waaleykum salaam waaw nan ngay def ba fay nit bu fekkee da ko amel bor te mënatoo ko gis te def nga yitte itam ci jéem ko gis waaye xamoo ci moom dara xamoo itam ay bokkam di jëndi nga mboolem ku bokkak moom te gisoo ko itam yooyu yëpp da ci da ci baax maanaam nga jéem koo gis moom boo ko mënta gis nga jéem a xam ay bokkam ak ña ko doon bu fekkee jógee na fi ñooñ ñëpp boo leen mënta gis nag waxoon naa ci biir wax ji ne danga ko koy sarxel da ngay seet lu ni toll nga sarxe ko yéene ko yool ba itam ak ko waaw loolu bu dee ab jullit moom moom moom moom moom leer na àtte bi leer na bu dee yéefar nag moom faw mu am wuute ndax yéefar nit ñi jëflanteeg moom dafa bari dafa dafa bari ak wuute ci biir diine ji daa am ñoo xam ne yéefar moom ne jëflante bi nga jëflanteeg moom dañ koo tënk ba sax ñaan sax fi ne ñaanal ko mu dugg ci lislaam da nga ko sañal ak mu gind ko waaye suñu ko ñaanal leneen waaye jàpp naa ne daal jëmmi bor moom boo ko amele li ci tënk atte bi daal jàpp naa ne mën naa wéy ci lépp mooy yow ki nga xam ne moom nga amel lijjantil gis ko boo ko mënta gis nga lijjante xam ñu ko jege soo mënta xam dara lu bokk ci moom na nga sarxel ko ko ak ku mën a doon rek yaakaar naa loolu daal mën na wéy laaj bi ci mujj ci dafa wax ne commerçant boo xam ne ay moroomam lay lay lay amelanteel lay amelanteel bor daal mu hmm. ngi jël waaye mi ngi fay hmm. waaye mënut a bàyyi bor daal moom moom bor daal munu ko bàyyi. waaye ñi muy ñi muy leb daan jël daal ak ñi bokkal métier la daal. mu wax lu ci lislaam wax. waaw commerçant yi moom bor moom da leen di yomb ndax dañuy jël ci dañuy jël di jaay di joxewaat waaye li ci njëkk mooy moom bu jëlee bor na am yéene fay ko ñaareel bi itam na bindante bor bi na ko wutali seere loolu moom bu fekkee mi ngi ci am ak sart yi it yi ñu ci waxoon yëpp rek bu ci amee rek loolu moom waa dara nekku ci ndax bor moom suñu borom jom moo wax ne mën maanaam iza tadaayantum bi daynin loolu moo wax ne fa bor day am rawatina koo xam day liggéey ci xaalis moom faw léeg-léeg muy seqal nit ay bor bu buñ ko bu lebutit faw mu leble masalan léeg-léeg waaye na ci sant na ci sart na ci na ci fexe ba sàmm ci sart yi nga xam ne moom lañ ciy wax léegi mooy nañ ko bind na ko wutali seere bu ma ne am lu mu ca tayle baax na mënta am itam moom na na ami seere bind ko te mu ko àpp boo xam ne ca la koy fay te mu am yéene fay ko itam waaye nag mënumaa tàqali ko bor loolu moom gis naa ne man war moom la war a seetaat moom nit ki war naa am yitte yi fi ne da am yitte ne kër gii dinaa ko tabax yi def yitte def pexe ba tabax ni nga am yitte ju mel noonu nag war nga am yitte ne dinaa teqali ko bor tey bu màggal Tuuba jotee da ngay am bor boo xam ne ci dana toll ci 1 million wala 2 million masalan boo xam ne marchandise nga koy def di jaay ngir màggal gi léegi loolu balaa màggal gi ñëw war ngaa mën a lijjanti ñaari millions yoo xam ne du doon bor di ko dajale ci sa biir ba bu màggal gi jotee nga def ko ca bañ koo jël ci keneen maanaam bor moom mën ngaa lijjanti ba teqali koog moom fi ne maanaam boo defee sa xel ne mënumaa teqali koog bor moom doo teqali koog bor mukk waaye yaay am yitte ne te bor bi kat bor ci moom war na maa teqali koog moom bu fekkee yow li nga ndax daa am ñoo xam ni bor fi ñu koy aajowu mooy màggal Tuubaa masalan dañuy wut loo xam ne dañ ci dañ koy yokke marchandise ngir mën a jaay loolee nag la koy wute mën nga koo jéem a lijjanti dajale ko balaa màggal ngay ñëw nga ko benn laaj moo laaj bu mujj bi nga xam ne moom la waa ji laaj mu dafa wax ne <laughs> laaj bu mujj bi lépp <laughs> xaalisu daayira maanaam ki nga xam ne maanaam dafa lépp xaalisu daayira bi daayira bi moom maanaam mbooloo mépp ko bokk waaye dem nañu lebal ko ci ka yor tris maanaam bu ko misaal trésorier moo ko lebal xaalis hmm. mu dem nag ba lan ko lebaloon moom sànku na te hmm. mënatut a fay ndax waa daari bépp la may amel ak wax wala waajooji rek lay lay lay lay amel <laughs> waaw nga xam nga xaalisu daayira moom sëñ bi moom daa ëpp leble sax nag day am ñoo xam ne ñëw leb ci keesu daayira bi bu buñ leen bëggee ñu ne sëñ sëñ Tuubaa moom kii xam nga lay caaxaan la maanaam waaye nag maanaam yow mbooloo mépp ko seq te yóbbaguñ ko ci sëñ ba xam nga te même bu dee alal sëñ tuba alal sëñ tuba wuro ko lekk moom alal sëñ tuba moom moom wuro war a gën a moytu boo ca lebe itam fexal ba indi ko moo tax alal yooyu moom ku ci mën a ba ku ko mën a moytu moom mooy li gën alal dayre yii lu mat a moytu la sëñ bi daal wax ñaqi talibe yi nii dafa am loo xam dañ koy dama ko mos dégg ci menn mag mu net li ma borom daarul moot ne dafa am mbokkam mu ko jege moo xam ni da ko sonaloon ci di ko ñaan aw fas yàlla dogal aw fas ñëw fa nee na ma ne fas wi de moom man la koy jox ñëw di ko xooli bët nee bu buñ toogee ma di ko kii xool fas wi boo ko xoolee xool fas wi waaye yàlla dogal fas wa am ku fa ñëwoon jóge boo weti cilmaxa mu jox ko kookee nee na mu mere sëñ bi nag nga xam ne moom moom wan ko ginnaaw sëñ bi waxee bi mu wax jëm bale ba mu yàgg rek borom doon woo ko ne ko da nga xamul ne alal yi fii ñëw du lépp lañ sëñ jëfandikoo am na ñoo xam ne am na ci alal yoo xam ne sañ nañ koo jëfandikoo sañ nañ koo jox suñu kok am na ci yoo xam ne euh, sañ nañ koo jëfandikoo waaye suñu koo jox suñu kok am na yoo xam ne suñu koo jëfandikoo suñu koo jox suñu kok la ca doyaar mooy waa ji xam ne moom la sëñ bi joxoon fas wa fi ne moom àggul këram loolu nag lu xoromu la waaye li ma bëgg a xam mooy jëmmi alal taali bi yi ñu dajale da ëpp daa mat a moytu ci moom waxuma laa di ci lépp ak di ci jël ak bu ñu wax nga suñ bi laa ko amel gaa yi duñ la mënal dara loolu ay caaxaan la moom mère jégal wa salaamaaleykum lenn kii laay nga léegi nit ki fekkoon hmm. ah, ah, waaw kay li dee moom moom moom moom moom ci réew wax nga dëgg accident allah amul sikk amul sikk waaw diye jooji nag moom lu mat a bàyyi xel la loolu moom damay wax sa imaam moom mu def ci mu def ci jataay ci moom waaw imaam loolu dañ ci wutal leen jataay diye ci moom daa bokk ci lislaam te ñu bari mayu goxal fi ne tey ñii fiir nit waruñu dañuy fàtte ne kii rey nga ko te war nga koo jox diye mm-hmm. diye nag ci cosaan téeméeri giléem la woon mm-hmm. téeméeri giléem fi ne boo ko xaymaa fukki million nga nangam dana kopp jëm ñaar fukk moom ah, waaw nga ko waxee jakartaay yi day ñëw fiir nit waaja faatu bu ko dee moom ñu ñu génn ci mm-hmm. loolu nag daa aaje waxtaan boobu moom diye ci moom nii ngeen def ci bor nii daa aaje ñu def ko jataayu boobu moom ndax moom lu rëy la lu bari yu ci aju la tey nit ñi duñ ko bàyyi xel. jërëjëf. ok jërëjëf sëriñ bi. jërëjëf sëriñ bi. Euh, kon mbokk yi loolu moo doon li nga xam ne. loolu moo doon li nga xam ne moo doon jataayu tey bii mu jëm ci bor ak i atteem ak i loram yaakaar naa tem bi am solo gi mu am solo moo waral istinbaat yi yu bare bare génn ci ci wàllu tafakkur ci xalaat ak mel noonu kenn ku ci nekk indi ci li nga ci war a wax kon ñoo ngi euh, delloo sant bu baax di ziyaara suñu sëriñ su baax si nga xam ne ñoom na àndal jataay bi sëñ Ibrahima imaam mi ngi nii toog di doomi sëriñ Assane moom sëñ Omar sëriñ Cheikh Abdou mu sëñ Basir mi ngi nii toog sëriñ Cheikh Assane mu sëriñ Naar Omar mi ngi nii toog sëriñ Sërif mu sëriñ mi ngi nii toog sëriñ Sërif mu sëñ Basir mi ngi nii toog mu mel na njabootu ko sëñ Omar gi ñëpp ñu ngi nii toog ci biir jotaay bi ànd koog yow kon su ko defee dañuy wax ne incha allah alterné sëriñ Gana Mesere Muxtaar moom lañ fa séenee dalal ci. tem boobu ma waxoon rek ma fi umul iraada ànd cheikhul xadim mooy ak jébbulu rek ak la ci aju lu mel noonu ca talaata ba insha allah rabbi ci lañ fa séenee tëj jataay yi nga xam ne mooy jataay yi diine yi daan amal fii yu xam-xam comme jataay bi mel nii al oustaz Sidi Diop moo ko war a tëj ci zakatul fitri wa salatul aid muy asakay mburum koor ak julli eet gi li ci aju lépp insha allah rabbi su ko defee àllarba ja tamit sëñ ku fa mën a àgg ci mi nga àgg fa kon su ko defee dañuy jox sëñ Ibra mu santal ñu sëñ bi ci turu sëñ Malick mi nga xam ne mooy xalifa kër sëñ Omar ci kàddu sëriñ xalifa mi nga xam ne mooy yor kàddu sëñ bu ko defee kon ñu déglu sëñ